dooleel nit yi wala ñoom ñooy taxaw nit yi ngir ñu mën a maye doole fii ci Sénégal Thierno Lecompte Seck ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM waaye laata loolu dañ lay remercier vraiment ci nangu bi nga xamante ne nangu nga ko wuyu si suñu invitation bii Euh, directeur beeg personnel lu réew mi FM. Mm-hmm. di am dëkk lool nag. Mm-hmm. Euh, pour euh, duggaat si kër googu googule ndaxte kër gu ma xaw a miin la. Mhm. daanaka bari na luñ may euh, faral di invité. ma di ci gërëm bu baax luñ lay <laughs> waaw ma di leen gërëm bu baax nag di leen sant bu baax si loolu ndaxte ñun vraiment loolu def ñu itteel lool. Ah, ñun de dañoo dañoo dañoo xaw a lakkale nag ñun. <laughs> <laughs> déedéet déedéet au contraire dañoo xaw a lakkale. bu lu mel nii buñ ko doon am tout le temps. Mhm. mérite dootul ñàkk si Sénégal. d'accord. pour wal leen donc euh, importance bi nga xamante ne moom la ñu jox lii ngeen xam ne moom nga di def nii parce que mhm. yombul mhm. Euh, temps d'antenne la y a un coût mhm. ah ngeen parce que ne vraiment baaxe àddina bi euh, waxtaan woo xam ne dafa jëm rek si mbirum maye deret loolu defe naa ne ñun duñ ko doon am si station yëpp kenn duñu laaj dara comme ni ngeen koy defee nii Mm-hmm. kon defe naa nit ñi dañ gën sensible te d' accord di ko remercier waat bu baax a baax encore une fois moom Thierno Lecompte Seck euh, monsieur Seck dañuy daal di tàmbalee waxtaan bi ci li nga xamante ne moom moo di kuréel bi nga xamante ne moom nga jiite xam naa yaa ngi ca bopp ba ay at te jii rek mm-hmm. ñu bëggoon nga wax ñu historique ku kuréelu association bi le euh, naka la. waaw association bi historique am day boo ko bëggee tàmbali da ngay fa boo ko bëggee xam da ngay tàmbali fa mu sosoo. Mhm. donc euh, mhm. euh, la sosu ki ko jiite woon ki ko créé tudda Amadou Ba doon liggéey Sonatel nekkoon maykatu det bu bu bu ñu ràññee. Mhm. Euh, cousin am nekkoon le professeur Lamine Diakhaté. nekkoon le directeur du centre national de transfusion sanguine. Mhm. Euh, si noonu nag euh, mu am benn anecdote boo xam ne moo ko poussé ba mu continuer maye deret ndaxte ñoom dañ doon maye mbes ñëw mu am ku waroon na mucc su hôpital la Dantec dañu soxna su fooroon mucc euh, di tout xëpp deret bu bëree bari mhm. ñu war ko transfuser. Mhm. Ah, ku ñu oo rek si ñu ko xaw a jege ragal bañ ba moom ñu mujj ko oo moom euh, ki nga xam ne mooy Amadou Ba mu jog dem bi muy tolloog hôpital ba euh, ndaw si faatu mm. mu dal ne lii moom euh, jaaduwul mm-hmm. donc nag war na mën a teg loo xam ni daal daal day ëmb maykatu deret yi ba hôpitaux yi bu ñu soxlaatee deret ñu jéem a oo ñooñu pour ñu ñëw teel a subi nit mm-hmm. ko soxla mm-hmm. donc loolu mooy sabab bi indi donc muy en 1989 bu mu créé association bi nag mu tuddee association des grands donneurs de sang maanaam ñi nga xamante ne seen maye nañu deret lu ëpp fukki yoon. Mm. waaw lu ëpp fukki yoon noonu daal la mu la itte woon pour dajeek ñoom. Mm-hmm. muy dox ba 1995 euh, man si laa ñëw bokk association bi mais maa ngi tàmbale maye deret en 1978. Mm-hmm. bon xaw ma woon ne association bi am na ba bés ñëw rek euh, ma jógee fi ma doon liggéeyee dajeek kaaru centre de transfusion sanguine. Mm-hmm. Euh, mu jógee si moom fi mu ma laajtee ñu ne euh, dañ doon may retraite fii ko organiser mooy président wu Agradobes mooy association comme ni mu tuddoon noonu ci mm-hmm. laa jàpp euh, gisanteeg moom en neuf cent quatre-vingt-quinze euh, ñoo bokk ci association mm-hmm. donc bi ñëwee association bi ma nekk rek tur parce que mm-hmm. Agradobes dafa limité am na ñoo xam ne benn benn poste de sang la ñuy maye donneur la donc nañ leen boole ñu def ko mu nekk association nationale des donneurs de sang ndaxte deret yi ñuy maye amul frontière amul race amul dara mën na jógee Dakar dem Kaolack mën na jógee Kaolack ñëw fii kon nag dañuy couvrir le territoire national. Mhm. loolu en 1996 euh, si euh, assemblée générale extraordinaire bi ñu amal si la proposé loolu. Mhm. mu nekk donc association nationale des donneurs bénévoles de sang du Sénégal di ANDBES. waaw loolu mooy cosaanam ñu hmm. nekk nag di nekk euh, di liggéey nag pour jàppale euh, centre de transfusion sanguine ak banque sang hmm. euh, justement ginnaaw bi historique bi jàllee tey jii ku wax association xam nañ ne am na naka ngay def ba mën a bokk ci kuréel bu nimel mel tey jii adhésion bi ngir nga nekk membre bu ADOBES naka lay tëddee bon adhésion bi day moom déjà boo nekkee maykatu deret rek hmm. boole nañ la suñu a waaw boo nekkee maykatu deret rek boole nañ la suñu biir mais nag li kay mottali nag yaa koy uti maanaam carte de membre. boo donneur la dafa war a am lu koy mandargal aussi. Mhm. boo yorewul carte donneur duñ la mën a jàpp ne donneur nga. Mhm. donc il faut ngi indi carte donneur de sang boo ne bii centre de transfusion sanguine wala béréb bu ñu may tet moo la jox. Mhm. carte boobu donc bu ñëwee ñun ñu xam ne kii donneur la. Mm. ñu intégré la suñu boobu daal ngay jënd euh, indi sa carte de euh, loolu moo lay boole si si association. Mm-hmm. Ah, am euh, parce que carte de la ñuy xam yow ban groupe nga ndaxte bu ñu lay enregistré aussi dañuy enregistré wàllu groupe bi ndaxte association bi aussi dafay ràññee pour xam groupe bu nekk ndax bu dara ame cible bi ñuy war a mën a ciblé. pour ñooñu dem moo tax aussi dañuy exiger xam groupe bi ki nekk. Mhm. loolu moom mooy li ñuy wax nag les membres actifs. Mm. mais am na ay membres yoo xam ne du ñu mayet mënuñoo mayet rek. mais mhm. dañu bokk ci association bi. Mhm. ñooñu tuddee leen des membres sympathisants. Mm. maanaam koo xam ne kii dafa feebar mel ni les drépano mu mel ni les hémophiles xam ne ñooñu ñoom seen feebar dafa aaj aajoo pour ñu faju direct am. ñooñu mën nañoo am pas-pas ak yéene ji bokk si association di liggéey pour que deret bañ a ñàkk mhm. ndaxte bu deret ñàkkee rek musiba dal leen mhm. ñooñu nag am nañu sax seen association mais am na si benn benn yoo xam ne ñoo ne ñun dañu association daf di organiser ay journée don de sang mhm. pour accompagner euh, li nga xam ne mooy liggéey bi ngeen di def ñu mel noonu euh, ak ñeneen yor yenn feebar yi aussi ñu mënuñu may deret am na si ñoo xam na ñi dañu ñëw bokk si association bi duñu am euh, groupe sanguin mais dañ leen jàpp comme ay membres sympathisants ndaxte kat liggéey bi ñu ikkati ñoom ikkati na leen. Mhm. beneen euh, xeetu ñu si nekk mooy nag les membres bienfaiteurs. Mhm. ñoo xam ne ñi mu mel ni ay sociétés. Euh, yoo xam ne dañuy xool ne nii lañuy liggéey dafa laaj ñu jàppale leen jàppale bi liñ si gën a itteel mooy ngay organiser don de sang maanaam mm. benn entreprise comme tey Rewmi FM amal bëccëgu maye deret def ñoon ko fa am bëccëgu maye deret boo xam ne bii année bu ne wala ñetti euh, juróom benn weer yu ne day am foofu ndaxte xam nañu potentiel bi ngeen mën a andi nekk na potentiel boo xam ne bi macha allah am njëriñ loolu nag euh, moom la ñuy soxla si ay kuréel yu mel ni seen yos mm-hmm. euh, soxla si aussi ay benn doomu aadama yoo xam ne yi ñoom tamit Euh, am nañu taxawaay boo xam ne bi mën nañu jàppale mbiru Maïda mhm. donc voilà ñooñu mooy xeetu membre yi nga xam ne daal ñoo nekk si si association d'accord euh, loolu moom leer na mais tey jii rek euh, xam naa ne am ay chiffres dina dina dina dina compliqué vu yi ñu nga ko mhm. expliqué tey mhm. jii eh, eh, eh, ci ci ci ci membre mun nañ jàpp ADOBES ñaata membre ñoo ko composé. dama lay xamal ne ADOBES sur les quatorze régions. Mm. yi nekk si Sénégal. ànd bés nekk na sur les douze. Mhm. maanaam douze régions yi boo fa demee boo ne ku bokk ànd bés nga yéene ko dina am mhm. kenn ko taxaw ne la man mi ànd bés laa bokk. Mhm. parce que loolu moo am solo. bokk nañ donc am sur les douze am nañ euh, euh, représentant donc douze yooyu aussi buñ ko doon tas dañuy dem si département yi ak communes yi. bon euh, on a aujourd'hui sur notre registre Euh, maanaam donneur ñoo xam ne ay donneur lañu waxuma sympathie mais donneur rek laa jox ñoo xam ne ñii des membres actifs. Mhm. ñoo xam ne ñooy doxal association bi nous avons sur le plan national cinq cent soixante dix membres. Mhm. naa loolu quand même important. Mhm. waaw soixante dix donneurs yoo xam ne euh, sont au niveau national mais bu ñu doon jël nag ñi si bok ñëpp comme ni ma limal mais weesu nañu <laughs> deux mille donneurs ah. <laughs> weesu nañ ko loolu bu koy xayma noonu la noonu la mais li si ëpp nag. ñu di gën a féetee euh, mm-hmm. si capitale régionale yi su mel ni Dakar su mel ni Thiès su mel ni euh, Touba aussi parce que tey en terme de don wala en terme de honneur à part Dakar c'est Touba qui est la deuxième waaw loolu moom euh, mhm. euh, euh, dañu des ci loolu ah. mhm. tey jii ngeen yor benn association fii xam nañ ne dañu xaw a am ay réalité réalités socioculturelles ñu bëri dañuy xaw a réticent même su fekkante ne eh, ak communication bi donné bi commencé na. a changé mais am na ñoo mhm. xamante ne euh, maye deret daanaka ak ku leen rey la ñu yemale seen kuréel bii di Ando Bes tey mhm. euh, fu ngeen toll ci communication bi particulièrement fi nga xamante ne moom moo di en dehors de Dakar wax nga ko bu weesoo Dakar Touba mhm. xam naa ñoom ñoo gën a sawar ci loolu communication seen stratégie de communication fu ngeen ci toll ak tamit comment est-ce que vous procédez vraiment pour toucher ñi nga xamante ne ñoom ñooy population bi Euh, lu metti la. Mm. lu metti la li tax ma ne lu metti la nous sommes une association qui n'a pas de te la communication dafa laaj moyen. Mm-hmm. moo tax sànq bi may tàmbali ma jëkk gërëm pour wane ne may ngeen opportunité bu suñu kaddu demee may ngeen opportunité fu ñu déggee ma dina wax ne buñ koy loolu am day tout le temps kon communication bi dina gën ndax seen portée ñun amuñ ko amuñu moyen yi. Mm-hmm. tey la communication a un il faut le reconnaître. Et nous sommes une association qui n'a pas de subvention. Ça, bon, je le dis haut et mhm. pas de subvention. Nous ñu def suñu coobare bopp suñu doole bopp suñu kàttan bopp lañ koy demee ah, ndaxte li ñuy def jaamu yàlla la jaamu yàlla nag doo si xaar kenn. Mhm. waaw nous sommes des volontaires. Mm -hmm. un volontaire n'attend rien. nous sommes des bénévoles un bénévole n'attend rien xaaruñu dara. Mhm. am na fooy demee sax boo ko nar a wax ñu ne a engagé Mm-hmm. <laughs> on n'est pas on n'est pas obligé <laughs> de defal leen mm-hmm. loolu ko déggee boo góorgóorlu tuuti da ngay bàyyi mm-hmm. loolu nag fekkuñu si moo tax ñu jaaxal dafa nit ñi le fait le fait que ñu mën di def yenn communication yenn activités yi dafay jaaxal ñu bëri fekk kat dañuy toog suñu biir rek eh, daal ne gars yi ah waaye yow teg naa lii kii na teg naa lii kii na euh, il faut le dire mu am ku comme ni ma un bienfaiteur daal ne wax mais écoutez man euh, comme fi dem man naa leen payal bien dem ñun duñ jël xaalis bi mu fayal ñu billet bi indi lu oto ñu dem fa ñuy dem. Mhm. donc euh, effectivement intérieur du pays bi fa la communication bi gën amee problème. Mhm. à Dakar bon su on se base suñu base bu ñu si norme yi maanaam li nga xamante ne moom la OMS wax ne moom la dëkk war a mën a doxee pour transfusion sanguine am baax euh, maanaam euh, ñaari junni nit yoo jël fukkee dañuy may loolu Dakar toll dix pour mille. Mm-hmm. su ma juumul mm-hmm. Mm-hmm. dix pour Dakar toll na si ëpp na ko sax. Dakar actuellement mu ngi xaw a jege euh, douze. tey jii boo demee si région yi ay quatre cinq nga am donc moyenne bi boo ko jàppee presque on est dit entre cinq et six pour mille. donc manqué nañu ñeent. loolu nag bokk na si ñàkk xam. donc communication boobu euh, war na mën a nekk ñàkk xam bokk na si ndaxte ñàkk xam boobu moo indi tey nit ñi wax naan la ñuy jaay mu nekk benn facteur bloquant. yàlla def na nag la la loi euh, bi nga xam ne génn na muy la loi euh, vingt vingt tiré vingt six bi nga xam ne président signé na ko euh, depuis le trois juillet deux mille vingt daf na at ñuy xaar nag décret d'application bi loi boobu moom ñëw na pour dim di ñu gën a dimbali si loolu nga xam ne c'est une communication bu baaxul la buy bloqué nit ñi pour ñu may rek maanaam dañ koy jaay. Mm-hmm. bokk na si facteur bloquant bi ëpp solo. Mhm. bi nga xamante ne nekk na si aussi euh, bëri bi ñuy maye deret dañu sori. Mhm. tey ku dëkk Tëngéej bu bëggee maye deret euh, war a jël oto ñëw ba Dakar ak coono yi si nekk passe au minimum dina passe mille francs bu xalaatee ne mille francs yi lu mu si dolli mu mën ko dépensé woo. du mhm. Euh, te ñun xool nañu ne bu si nit ñi organiser foofu don de sang lañ fay am bu ñu toogee san centre de transfusion sanguine wala si biir banque de sang yi duñ ko am. xëy na ren jii bon ñaari at a ngi na lu ko waral mooy Covid bi ñëw. Mm. nga xam ne tey dañu gën a préféré ñun ñu ñëw centre de transfusion sanguine nga xam ne c'est pour gérer. Euh, respecter la mise li nga xamante ne moom lañ wax ne nit ñi war nañ ko euh, war nañ ko teg pour éviter ñuy wàllante Covid bi. Mm. loolu moo tax tey ji sunu collectif yu bari ñu doon def si dañ ko annulé. Mhm. Euh, maanaam plus de 60 pour cent maanaam juróom fukk ak nangam si ay collèges yu ñu programme woon dañ ko parce que dañ lay ah, boo mënee wax sa mbooloo ngeen ñëw centre de transfusion sanguine xam nga loolu day poser problème. day poser problème kay. day poser problème donc ñaare association bien organisée wala ay entreprise ñoom ñooy ñëw actuellement. di gën a feeñ au niveau de centre de transfusion sanguine ba tey jii Covid bi lu muy métti métti métti ah dur ñu ngi koy sentir mais quand même ñu ngi essayer autant que peut se faire maanaam lu ñu mën. pour que euh, demande bi nga xam ne dafa am solo lool ñu mën ko respecter. Mhm. donc loolu bokk na si facteur boobu bokk na si. Mhm. donc facteur j'ai parlé de facteur euh, culturel maanaam. Euh, socio socio culturel loolu bokk na si nit ñi mentalité bi ñu am dañuy jaay rek. Mhm. ñenn ñi aussi affaire affaire xeet. affaire affaire xeet xeet xeet. xeet xeet ah. xeet maanaam euh, euh, casse si tu veux ah, am genre genre ah. euh, c'est culturel toujours. ah kon may maye deret bi na ba foofu aussi. mais mais bien sûr sama deret du ma ko may ko sol n'importe qui. boo demee à l'intérieur du pays am na ñoo xam ne seen deret dañu noble seen deret duñ ko may n'importe qui. am ñoo xam ne dañu man kenn du sol n'importe quel deret. Mm. <laughs> dina si ay waxtaan ñuy dégg. Mm-hmm. donc loolu ça pose problème. Mm-hmm. ñenn ñi nga xamante ne moo xaw a wàññeeku sax léegi man kat du ma du ma di feebar. boobu nag mu ngi gënoon si tangu sida bi parce que nit ñi dañu ragaloon dañu laa boo demee boo mayee dañ lay wax la feebar yi nekk si yow euh, am na buñ la waxee nga am sida mu yàq sa àddina donc loolu tamit c' est un facteur bloquant mais quand ak euh, évolution bi sida bi am euh, côté boobu gën na wàññeeku ndaxte ñu xam nañ ne quand même bon euh, nga xam ko moo gën sax nga bañ ko xam mën a faju feebar yi ñu ñuy lax dëgg la boo mayee deret ñaar bari na ay feebar yu feeñ mhm. mais du feebar yoo xam ne yi yooyu génn àdduna la feebar yoo xam ne mën ko mën nañ ko faj boo ko teelee xam loolu aussi defe naa ne avantage la mu ngi mel ni rek militaire bi war dem li xeex Sénégal nga ne du ma dem du ma dem front front euh, mhm. loolu moom c'est une donc tey ji war nga mën a fexe yow ne man mi kat naa faju comme que seet nañ ma ba ma gis feebar bi pour ma bañ ko wàllee. Mhm. donc loolu loolu lañ ko tuddee donc loolu aussi bokkoon na si facteur yi nga xamante ne da doon tax nit ñi di ñu may rek ñenn ñu aussi ñàkk xam bi ma la wax léegi. day mhm. gis kenn mu ne ah man kat dama sama sama dama tuuti mënuma may rek. alors mhm. que du am ku pata ku tuuti ñooy yem nit nit ki au maximum juróom-benn litre deret mooy daw si yaram. Mhm. yaa xam nga pesé nangam ki kii sew ruuj. Mhm. am solo mooy pois bi moo am solo si mètre. poids boobu ñuy laajte. maanaam nit ki bu amul juróom fukki kilo waruñu jël deretam. maanaam cinquante kilos. moins de cinquante kilos waruñu jël deretam lu ko waral mooy tey jii poche boobu nga xam ne moom la ñu jël deret yi quatre cent millilitres lay def quatre cent millilitres yooyu. amuñu droit jël si nit ki lu ëpp huit millilitres. Mhm. huit millilitres. Mhm. donc comme amuñu droit jël si nit lu ëpp huit millilitres huit millilitres yooyu moom ngay multiplier par cinquante mu jox la les quatre cent millilitres. Mhm. donc bu nit ki amul quatre euh, cinquante kilos po euh, la nga waroon jël dafay manqué. loolu donc moo si ne mais sinon euh, nga dem gis docteur yi ñu seet la wax na ne lii Euh, vraiment boo ko defee di nga am di nga sa wér-gu-yaram di nga gën yokku mais ret day loolu. Mhm. Euh, nit rek moo ko mën a may doomu mhm. euh, mu mel ni li nga wax lépp nag terewul ba léegi wàllum communication bi dina am fenn fu muy soxee ndax bu ñu demee certainement ba am yenn considération yi du ñu ko bañal nit ah ku nekk xëy na ak fi sa xel toll fu sa xol toll autant pour moi donc mhm. dañ la koy jéem a nangul mais Thierno Locone Seck xam naa ne bu ñu ne association wër nga Sénégal def nga ay région ak ay région tey jii bu fekkente ne am nga benn anecdote boo xamante ne mën nga ñu ko wax par rapport ak euh, seen tournée yi ngeen di farataal di def ak yenn réticence yi ah, ci ci lan lay gën a porté wu bu weesoo peut-être euh, affaire sociale bi ma lim sànq bon d' abord euh, il faut dire que ne tournée yi difficilement lañ koy defee. samedi passé rek maa ngi jógee Louga. Mhm. Euh, di waajal euh, dellu nu mu tuddati incha allah. Touba parce que dañu commencé def suñu assemblée générale de renouvellement de nos instances. D'accord. donc euh, on est en tournée nationale pour préparer euh, l'assemblée générale nationale voilà mais des fois dinañu am ay kii doy waar dem nañ fi Linguère doon fa organiser don le sang Euh, si taw Covid bi bi Covid bi gën a metti ñu mhm. jógee Dakar dem ba Linguère pour loolu euh, bi ñuy retourné <laughs> vraiment yàlla def sutura nekkoon xëy na sax duñu wax tey si télé si si mhm. si rajo bi mhm. donc pour wan la des fois aussi am na ay anecdote yoo xam ne dem nañu dem nañu beneen dëkk boo xam ne bi pour ñu am fu ñu problème la woon. Mhm. donc euh, pour ñu gis ku ñu ku ñu daal sax c' était un problème. Mhm. bon donc mais yooyu yëpp ñun dañuy wax ne toujours solution lay am. ci liggéey bi la bokk ci liggéey bi la bokk. Euh, réticence yi nag moom ay ñaxante la. dem naa si benn béréb. boo xam ne bi bi ma ñëwee toog dañ ma jëkk a xamal ne ah fii de du ñu may bo mhm. ah bon li tax du ñu may deret ndekete ñoom dañ ne dañu dégg benn kilifa goo xam ne gis ne moom deretam kenn du ko lu am solo nga noonu. mooy mm-hmm. traite am ko rax. Mm. kon ñoom tamit duñ may traite. Mm. yàlla def ma dem toog ak benn benn kilifa. Mm. ñuy waxtaan sa gox boobule. ñu organiser ñu toog mu daal ñu ne góor gi daal ma waxtaan ak moom ba pare mu ne ma waaw man ndax man naa maye. ma ne ko maye nga ba pare. ndax âge am mu ne ma ah ma ne ko waaw def na l'intention vaut l'acte. beneen mm-hmm. saa ne nga ndax mën naa maye rek. mel na nga maye mu daal waaye gars yi yéen ñëpp dañ leen waay Mhm. mais keroog lañ fa jëlee si deret kenn mhm. xam nga déjà donc manque d'information rek la muy indi. Mhm. y a des réticences yoo xam ne dafa am. c'est parce qu'il y a un défaut de communication quelque part. Euh, communication bi àggul si ñenn ñi ça se comprend parce que tey jii bon li ñu sant yàlla sax mooy aujourd'hui avec euh, euh l'émergence maanaam euh, WhatsApp bi ñëw nii. Mm. ñu mun permettre de à partir de là où nous sommes de pouvoir faire des sensibilisations en ligne. dañu jël suñu benn membre mu toog fenn invité ay xaritam bon invité ma euh, ñu échanger pendant deux heures de temps. Mm-hmm. en ligne et ça c'est gis ay résultats yu mm. mais loolu aussi boo amul connexion bu doy doo ko def. Mm-hmm. <laughs> Mm-hmm. donc y a a c'est a un défaut de moyen daal. Euh, qui pose problème alors que si la communication parce que communication bu jàllul parce que si communication bi. Euh, si la sensibilisation bi di mën a mën a amee doole. tout à fait bon euh, nit ki nag bu ñu ko sensibiliser dina xam te boo xamee day jëf moom si tam. Mm-hmm. voilà donc nag euh, loolu vraiment te du rek même le centre de transfusion sanguine mm-hmm. seen communication tey jii waroon na gën a wuti yow. Mm-hmm. mais moyens yi moo manqué. mais moyens manquent a ce niveau parce que budget centre de transfusion sanguine mais dafa néew. dafa néew structure boo xam ne moo moo aar lépp lépp direct ci Sénégal. Mm. bon budget nekk zéro virgule euh, quatre pour cent zéro virgule cinq pour cent du budget du ministère de la santé dafa ne lool loolu loolu yenn maanaam. Mm. Mm-hmm. ça pose problème ça veut dire que donc quelque part centre euh, bi du mën a doxal ni mu war a doxalee. Mm-hmm. ñun centre bi la ñuy jàppale. bon man euh, du suñu du suñu liggéey mais def nañ ko suñu liggéey tey ndaxte que ñun nous sommes à retraite am na ñoo xam ne ñu tey vraiment pour ñu déplacer wu dem bërëb sangam mais ça va difficile. Mm-hmm. ça euh, d'infrastructure, il y a un problème de budget, il un problème de communication. Mm Le mhm. centre jàmbaar lañu ñu bon grâce ak la appui yenn yenn partenaires yi euh, tey en terme d'équipement avancé na. Mm. mais mais des na lu bari. Mhm. des na bari ndaxte mm. tey jii euh, boo demee réew taax yi man bu ma jógee di maye deret damay ñëw ne bon man sama globe rouge laay maye. Mm. damay toog si machine bi machine bi jël sama deret segg globe rouge jaarale ko fële delluwaat ko sama deret. Mhm. te foofu la gaa yi toll. Mhm. mais fii ñun bon ndaxte liggéey bi centre bi def centre bi bu jëlee poche deret bi rek da koy traité maanaam da koy na fexe ba séparé li nga xam si nekk. Mhm. muy globules rouges jaar fii euh, plasma bi jaar fii euh, plaquettes yi jaar fii. Mhm. yooyu dañ koy soxla apparemment. bon donc li joxe tey si poche de sang lu néew la li muy joxe si si des produits dérivés moo ëpp mais bu fekkente ne équipement am demeewul comme ni mu demee ay ay handicap lay nekk. Mm-hmm. Euh, euh, justement par rapport ak euh, foofu sax ci centre de centre national de transfusion sanguine bi ñu gën mm-hmm. ko xam ci CNTS foofu la ñuy mm-hmm. taxawandi rek. donte am na ñoo xamante ne dañuy porté wu volontaire surtout ces dernières années gis nañ ne eh, fu ci nekk ci askan wi dañuy def ay SOS moo xam ci média classique bi moo xam ci réseaux sociaux yi comme ni ñu koy faratal di waxee ah. Euh, chaque mhm. fois ci semaine bi dangay gis ne am na ñoo xamante ne dañuy collecter donc euh, du sang pour euh, mhm. jox ko au niveau des structures hospitalières mais mhm. n'empêche au niveau ci centre national de transfusion sanguine bi dañuy de am le plus souvent lu ñuy wax ay rupture de poche ci côté boobu aussi qu'est-ce qu'il faudrait faire vraiment pour ñoom ñu mun leen jàppale wala ñu mun leen venir en en waaw eh, loolu wax effectivement dinañ koy dund. Mhm. mais xëy na des fois nit ñi aussi dañu koy def benn ampleur boo xam ne sax du fa toll. d'accord eh, li ma la mën a xamal mooy bés bu yàlla sàkk. Mhm. bés bu yàlla sàkk au minimum au minimum centre bi dina génne téeméer ak juróom fukki poche cent cinquante poche. régulièrement chaque jour que Dieu fait. d'accord minimum ça c'est le minimum que tey bu la yàlla baaxee woon rek nga toog ba booru midi et demi. Mm-hmm. Euh, jëm suuf. nga doxantu taxaw buntu san de transfusion sanguine. Mm-hmm. da nga gis ambulance yi ñuy duggee gauche et droite. Mm-hmm. c'est un défilé infernal. te ñoo ñëpp deret la ñuy ut donc loolu boo ko jàppee rek boo jàppee ne poche bu nekk benn nit la ça te fait donc cent cinquante personnes par jour. te benn nit boobu balaa muy mayewaat deret dina toog ñetti weer. pour soog a kon xam nga bu fekkee ne dafañ joxe tey fanweer. Mm. ëllëg euh, amuñu fanweer ñu am vingt cinq. Mm-hmm. déficit ñëw na wala ñëwul. déficit ñëw na kay. donc loolu nga fa beneen bi si des dafa am lu ñuy wax les groupes rares. Mm-hmm. mooy les moins. des fois si ak composition population Sénégal. Mm. mën nga collecter téeméeri nit. ñaar wala juróomi moins nga si am. Mm-hmm. ñaar wala juróomi moins. Mm. par groupe bi. kon xam waaw ma am A moins. wala B moins wala O moins. d' accord la am juróom nga si am mais doo si am lu bari. Mm-hmm. parce que dafa raar plus ñoo ëpp plus ñoo ëpp. Mm-hmm. c' est les groupes rares on les appelle les groupes rares. positif bi moo ëpp. positif moo ëpp. d' si population Sénégal. d' accord kon léegi la la boo ñëwee bu ñu la deret amul da nga naan ah, deret amu fa. c'est mm. que am na fa mais deret bi nit la mm. moo fa amul. Mm-hmm. loolu aussi xam communication daf ko la. accord. communication daf ko laaj. bon donc te moyens yi ñoo mën a may plus yi plus yi mënu ñu may moyens aussi lu jar a xam euh, la. waaw yow boo nekkee moyen yow boo dee jigéen nga nekk moyen ñaar ñaar yàlla si jëkkër nekk moyen. parce que jëkkër bu nekkee plus rek problème bi day daal si si si si si seen njuréel gi ngeen di bon bref c'est technique duñ si jaar duñ sori donc pour wan la euh, demande bi. dafa forte actuellement. forte dafa fekk mu forte. Mm-hmm. li li service demande demandé ñoo bari. Mm. ñoo bari tey dara li ñu ko soxlaa dafa bari lool te rawatina centre bi wax na la sànq si liggéeyam du ay lépp du poche yi lay joxando lépp des fois dañuy laaj gis nag euh, euh, hôpital boo xam ne naan man globule rouge laa soxla. Mm-hmm. congé globule rouge kii na man placement la soxla kii na plaquette la soxla moo tax centre bi bu maanaam bu jëlee téeméeri poche. dina jël presque soixante quinze yi. Mm. pour mën a def li nga xamante ne mooy séparation boobu pour répondre si besoin bi te loolu aussi dafa am solo ndaxte dina éviter yàq quelque part. Mm-hmm. waaw ndaxte mooy temps bañ koy denc daf si am solo lool. Mm-hmm. Euh, loolu aussi boo xoolee euh, yow ñu bind la ne poche lañ bu bu bu poche entière la ñu soxla fekk def nañ séparation séparation ba la fa des euh, par rapport ak li ñu yóbbu si kële. loolu aussi mën na nekk luy indi ñu naan sang dafa manqué. rupture bi. Mhm. rupture bi mais euh, rupture totale du am ndaxte toujours dafa am foo xam ne fii nag bu fa euh, demande bi tolloo au niveau stock bu ñu xoolee stock bi fu mu tolloo am na bu fa tolloo du xaar ba mu ba mu ba mu brës. Mhm. ñu soog a uti. Mhm. déedéet am. moo tax bu ñu fa bu ñu ko xalee tiim rek dañ naa ah dañ leen uti ji le sang moo tax ñu naan le sang manque mais amul pénurie. mais le sang manque si sang boobu manqué nag yow so soxla boobu mën na si nekk. waaw loolu nag euh, euh, am na nu muy demee boo toogee benn collecte surtout yi collecte ak ni muy demee. Mhm. macha allah boo buñ la ko joxul tey amaana bu ëllëgee boo ñu jox la ko. Mhm. beneen bi si des da ngay koo xam ne ki aussi ñooñu si si wàllu euh, bindkatu ordonnance yi la prescripteurs yi. Mm. bon benn poche la soxla mu bind ñett ñaari poche wala ñett. Mm. Mhm. ñu jox ko ko benn ba lay utiliser. ah ça pose problème. donc côté boobu aussi ñi nga xam ne ñoo nekk si béréb yi war nañu xool nan la ñuy bindee am na loo xam ne li ëllëg ko ngay bindee poche boo amaana boo bindee comprimé mu faj ko. Mm. mais xëy na poche bi moo gën a gaaw. Mm-hmm. préféré poche bi. Mm-hmm. yooyu yëpp donc là dafa yokk demande bi. Mm-hmm. ak euh, vraiment euh, feebar yi nga xam ne yëpp tey jii balaa ñu koy mën a faj deret am loolu aussi euh, bu fekkente ne ñooy maye bariwul bon demande bi fort a ah, il faut que mu ñu jéem a góorgóorlu si ñuy maye ëpp. si ñuy maye ëpp bu ñu ñuy bu ñu ëpp rek. Euh, musiba boobu dañ koy dund te loolu nag vraiment déjà ñu ngi si sant yàlla ndaxte Covid bi foogoon nañ ne dina impacté bu baax dëgg la impacté na ndaxte euh, sunu euh, prévision yi fañ ko bëggoon atteindre aguñ fa mais quand même il faut dire que ne y a beaucoup d'efforts Euh, euh, surtout à Dakar. Mhm. bon intérieur du pays bi nag comme ni ma ko waxee les structures sont éloignées ba pare euh, communication bi des na bu baax a baax surtout Sénégal. justement situation au intérieur du pays particulièrement ci fi nga xamante ne moom mooy sud bi ah, ay moo xam Tambacounda Sédhiou mhm. Kolda mu mel ni lim bi ñuy joxe dafa néew trop ndax ci ay xayma boo jëlee ci mille habitants daanaka ñiy maye deret du ëpp dix. foofu tamit ndax euh, taxaw jotul ñu taxaw def fa benn euh, taxaw jàngat ndax quoi qu'on puisse dire ñi yeewoo ci gox yooyu xaw nañoo bëri aussi. Euh, gis nga soxna si booy mooy li au départ. Mhm. problème bi bi gën a fondamental. mooy l'éloignement maanaam sorewaayu béréb yi may rek. d'accord. ndaxte indi fan la léegi kaawu Tëngéej ak Tëngéej Dakar. Mhm. Tivaouane ak Thiès Tiwaawan bu mu góorgóorlu loolu dafa am as tuut as lëf di si jàppante di soxnaku. Mhm. Tiwaawan amul banque amul woon banque de sang. Mm. diggante moo Thiès tey jii sur les quarante six départements. Mhm. que le Sénégal on a peut-être vingt quatre banques de sang ou vingt cinq. vingt de sang bon su boolee centre de transfusion ñu vingt six. Mhm. kon nga ne donc y a gap. Mm. quelque part il n'est pas dit partout la ñu war a def euh, banque de sang. mais war nañu mën a def bon état nouvelle politique de l'État. bi nga xam ne loi bi indi ko nga xam ne dañuy teg ay centre régional de transfusion sanguine mm. ñu am muy nekk doole presque CNTS au niveau euh, régional mm-hmm. euh, mu am ay poste de transfusion sanguine dugal nañ si li ñu tuddee ay dépôt de sang euh, nekkul woon au Sénégal bon léegi lañ ko commencé doxal dépôt bi mooy foo xam ne dañ ko aménager rek def benn appareil pour que nit ki bu ñëwee may deretam dem mais du traité dépôt lay nekk centre régional bi centre de transfusion sanguine ñooy jaar ñëw récupérer dem traité ko. Mhm. loolu bokkul ak de transfusion poste de transfusion moom day analyser. Mm. Euh, xaymatraite yi pour mën ko mettre à disposition mm. centre a transfusion li muy def moo ëpp doole mm. donc centre régionaux yi dañuy xaw a nekk euh, centre san national bu ndaw au niveau de la région mm-hmm. mais même loolu euh, tey jii am na si ay ñu temps mënagul sotti ba léegi mm-hmm. mënagul sotti ba léegi bâtiment yi jóg nañu mais ba léegi mënul soti sa mm. pose problème mm-hmm. te beneen bi nga xamante ne nekk na mooy tey partenaires yi nga xamante ne dañ doon jàppale centre de transfusion sanguine lu mel ni le fonds mondial lu mel ni euh, la coopération euh, française mais dañu dañu dañu génne seen loxo si ndimbal boobu ñu doon indi par rapport aux poches. Mhm. poches yi nga xam ne dañ koy may gratuitement. Mhm. centre bi da koy jënd. Mhm. la sa nekk xaalis la. mais tey ñooñu bi ñu demee état bi jël engagement pour dina ko delloo mais delloo boobu balaa muy rek centre ba presque day day dina fekk mu nekk à genoux. donc yooyu dafay nekk problème. Euh, donc ba tax na kon y a un problème boo xam ne bi daal il faut que état bi jël ko à bras de corps. Mm. jël centre de transfusion sanguine yéegal ko si projet prioritaire yi. Mm-hmm. yi nga xamante ne moom la état bi partenaires yooyu la ñuy mm-hmm. tey jii transfusion foofu la toll. Mm. ñu ngi siy def ay jéego mais liñ siy jéego dafa néew nee la budget centre de transfusion sanguine zéro virgule cinq le budget de de comment dirais du ministère de la santé mais loolu loolu loolu est-ce transfusion mën na si doxi mm. ah trans ba tey jii oto bu baax a Eh, demal waxut a région yi nag. Mhm. bu ambulance bi disponible dans les régions du ñu mën a def collecte. Mhm. ah ambulance bu di ko yóbboo tey mën nañu programmer collecte balaa ñuy dem ñu oo ambulance bi pour y a un cas d'urgence mais ambulance bi fa dem. Mhm. bon donc euh, mu xam ne au delà même de l' wax ne même les cultures locales. dañ mm-hmm. si war a dugal seen loxo. bi mm-hmm. si war a dugalee seen loxo ñun ñu ngi si y a un projet bu ñuy togg fu mu nekk nii ñoom lañ ko jëmee. Mm-hmm. pour que vraiment ñu sentir leen si li nga ne mooy transfusion sanguine bi. état bi rek bu ko bëggee tey dem dem difficile. donc tey jii ak compétence transfert la. ñoom mais tey war nañoo a dugal seen loxo ba ñu sentir ni euh, don si région yi. ah mais dégguloo fenn benn culture locale buy taxaw tabax. poste de transfusion sanguine. wala naa tabax euh, euh, dépôt de sang amul. boo ko dégg dans les politique. Mhm. amul kenn man maa ngi déglu programme yi gars yi ku nekk ngi wax mais dégguma kenn ku naan fi ñuy maye deret moom daanu fexe mu am suñu mhm. mhm. euh, alors que tey maye deret dafa position boo xam bi ah euh, santé mënu ko écarter c'est pas mm-hmm. la médecine sans mm-hmm. euh, mm-hmm. euh, ci région yi sax Thierno Lecompte Seck lu gën a bëri ci banque de sang yi dañ koy loger ci li nga xamante ne moom mooy hôpitaux yi mais dafa mel ni dañ leen di loger foofu ba pare te duñ leen jox ay moyens adéquats pour ñu mën a dérouler seen politique aussi ndax loolu tamit ñiy ŋànk lépp lu jëm ci wàllum main d'arrêt particulièrement waa CNTS dañ koy regretter à chaque fois aussi. waaw loolu lu am la loolu am la parce que bon mooy li ma la indi on est dans une voie. Mm. bon sans mu ngi si yoon. Mm. pour fexe ba loolu nga xam ne ay gàllankoor la mu dañ. ndaxte euh, tey jii centre régional yi centre régional de transfusion sanguine yooyu ñu yor tawax noonu mm. synthèse moo leen di gérer administrativement et financièrement. Mm-hmm. dootuñu dépendre si hôpital bi. hôpital bi nag day am nag banque de sang. waaw banque de sang boobu nag moom moo koy gérer financièrement. mais techniquement c'est supervisé par le centre régional. bon mais gars yi dañu jàpp te loolu laay wax ne vraiment euh, doo xam noo koy qualifié. Mm-hmm. parce que ñoom dañu jàpp ne euh, service banque de sang bi service buy jël buy lekk xaalis la mais du indi xaalis mais service bu indi xaalis la. Mm-hmm. parce que malade ba fa hospitalisé yaa ngi koy fayee ko. Mm-hmm. bu malade hospitalisé woon doo am doo am euh, doo am xaalis booy utiliser booy utiliser direct. doo am fonds de roulement. mais doo ko donc malade boobu nga fexe ba mu hospitalisé wu ñëw ne bu demee fii dañ ko mën a may deret mais deret ji indi la la xaalis mm. mais ñoom dañu jàpp euh, banque de sang comme des services consommateurs et non pas des services productifs yu indi euh, retour sur investissement. Mm. parce que c'est vrai c'est un investissement tey collation bi poche yi tout ce qui s'entoure tey jii de boo xoolee budget budget euh, euh, hôpitaux yi na si hôpital boo xam ne budget en terme de collation dina weesu un million ndem am na. Mhm. je ne pense pas parce que dañ lay ñaata collecte lañ lay ay euh, dans dans l' année deux cent collect wala trois cent collecte mais loolu qu'est-ce que ça signifie. Mhm. benn collecte mën benn benn benn problème am rek mën nañ yóbbu collecte li collecte bi amoon yëpp a la durée de conservation et tout ça mais donc euh, tey jii euh, mooy li indi léegi rek comme nag les structures yi nga xamante ne mooy hôpitaux yi yu bari na si yoo xam ne yi collectivités locales yi ñoo leen di gérer mais quand même war nañoo mën a gën a seen loxo. ba euh, en terme d'équipement euh, en terme de budget vraiment en terme de personnel euh, banque de sang yooyu man ko am pour mën a répondre à la demande parce que mhm. demande bi tey ak feebar yi xew ndeysaan am na benn góor gu ma mës a interpellé Mbàkke la nekkoon ne ma Thierno waxal sa kaw ñun day ñun ñuy ñu ñuy def kii comment ça s'appelle mais bu may katu deret yi amul musiba am mhm. eh, mënoo def dialyse te amul deret amul mhm. parce que jalis day segg sa deret dindi lu bon li bu manqué ñu sol la deret mm. waaye mais góor ga ndeysaan ba mu waxee daf ne ma nous sommes cinquante sur la liste mm-hmm. cinquante yi euh, bu ñu deful attention euh, gars yi dañuy mm. mais gis nga deux mois après ba ma demee euh, dëkk ba mu dëkk mm. ñuy waxtaan moo xam ne ma ne quarante sept yi génn nañu àdduna mm-hmm. te si ay rendez-vous yu Mm-hmm. parce que yenn yi dret du gis ku o dama war a def sama jalis dret ma am dret mm. tu mais des fois ñun suñu bopp dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy sonn si si si. si sollicitation di sonn pour si sollicitation yi. ah oui ça moom c'est évident mais bon boo xoolee ne yaa yaa engagé wu euh, euh, yàlla ngay def leen tel mais il faut que nga ko. Mm-hmm. voilà c'est pas facile. Mm-hmm. mais mais l'intérieur du pays effectivement c'est des problèmes euh, moom laa la wax ne on est à cinq. pour cent par rapport à la norme de euh, l'OMS alors que à Dakar moom Dakar te Dakar li ëpp doole nag mooy étudiants yi la preuve bu étudiants yi euh, tëjee rek centre euh, de transfusion sanguine commencé am ay problème mm-hmm. parce que population bi mais dret foofu mais maintenant on soixante dix pour cent ce sont les étudiants ça il faut le dire ah ça mhm. il faut ni kon euh, étudiants yi am nañu au moins ben geste noble bu ñuy bu ñuy bu ñuy def. ah oui ah oui <laughs> ah oui ça je l'affirme et je l'ai crie haut et dama koy wax sa kaw. Mhm. étudiants yi euh, tey faculté yi euh, d'ailleurs sax am na benn association bu nekk foofu seen biir boo xam ne dafa ñëw nuyu ak ñun benn partenariat ñu wax cent étudiants volontaires et ils sont très représentatifs au niveau national. Mhm. fépp fu ñu dem di def journée don de sang ànd ba sporté ko mais yi ñëw ànd ak ñun donc loolu dañ koy saluer nous avons aussi euh, l'association des femmes médecins euh, aussi du Sénégal mm-hmm. ñooñu tamit euh, macha allah taxaw ànd ñun pour y a aussi les jeunes de United Project mm-hmm. ñooñu ñoom c'est l'équipe la plus dynamique ndaxte ñooñu le tour il faut le tour du Sénégal avec nous ah ñoom dañuy ànd ak ñun mm-hmm. te fu dem macha allah équipe gën kaa néew dinañ fexe ba indi fa quarante quarante quarante jeunes ah yu may retraite ah ça c'est c'est important bon vraiment ñu gën ñu gën leen a xamal li nga xamante ne mooy liggéey bi si wàllu may bi loolu moo si nekk mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Euh, Thierno Lecompte Seck ah dañuy màggal li nga xamante ne moom moo di don de sang le mm-hmm. juin bu nekk euh, le 14 juin le 14 mm-hmm. juin autant pour moi bu nekk ci àdduna wërgal këpp Sénégal nag xam naa ne boobu li bëccëg dañ ciy farataal di di di di di di di di di marqué seen empreinte comme nuñ koy farataal di waxee mais mu mel ni ñaari année yi dañu tombek jàngoro bi di Covid 19 daanaka mhm. sax mu ngi continuer parce que beneen virus euh, génn na tey jii mhm. euh, ndax engouement bi nga xamante ne ndaw yi mag yi ñiy farataaloon di dem euh, di maye deret ndax pandémie Covid bi amul lenn loo xamante ne wàññi na ko ci boobule engouement moo xam ci début bi ba jamono ji may wax ak yow bien sûr. waaw wax naa ko si sama biir wax euh, Covid bi impacté na bon mais quand même euh, la tendance est un peu à la baisse. Mhm. Euh, mais tout au début de de la pandémie nee naa par exemple sur cent collectes programme soixante yi dañ ko dañ mm. parce que il fallait respecter les les mesures barrières. Mm en concertation avec la direction du centre ñu ne non ça risque de poser problème donc nous en tant que donneur on va essayer d'organiser des journa yoo xam ne yi dañuy jël tout ce qui est euh, gestion des mesures barrières maanaam lépp li nga xamante ne rek war nañ ko mën a dañ koy jël organisme parce que mënuñu toog te du am. Mm-hmm. et on est descendu sur le terrain. Mm. loolu permettre na euh, le directeur du centre de transfusion sanguine daf ñu si yónnee bataaxal remercier ñu féliciter ñu ndaxte engagement boobu ñu jël bu ñu ko defal woon kon tey kenn du ko waxaat. même le ministre même s'est déplacé wu na benn visite inopinée pour ñu xool euh, réellement nan la ñu organiser don de sang par rapport à la à la Covid ba mu génnee dafa féliciter mhm. le centre national de transfusion sanguine mhm. ndaxte au niveau du centre moo tax ma lay au centre le jii ñun organiser si benn week-end boo xam ne bii et c' est une première. Mm-hmm. parce que record dans le sang ñaare euh, pour nga am yenn niveau yi il faut aller au niveau du du cantonnement militaire. Mm-hmm. mais organiser nañu avec les femmes de l' association ak suñu différentes euh, différents partenaires yi euh, associatifs mais on a eu en une journée sept cent trente neuf poches. Mm-hmm. est important benn samedi. bon donc Covid bi dëgg la nga impacté na mais avec stratégie centre bi teg. Mm. ak pas-pas bi nga xamante ne association am na quand même mu ñuy permettre ñuy dem euh, xëy na euh, li ñuy doon séntu en terme de truc de de don amaguñ ko parce que tey boo jàppee ne euh, centre bi année bi dafa envisagé woon am quarante cinq mille donneurs, mm. mais amuñu 45 000 donneurs. Nous gravitons euh, au moment où je vous parle euh, par rapport à cet objectif, on est euh, au, euh, entre 28, donc on, est presque à 60 mm -hmm. Mais loolu quand c'est important par rapport ak ak pandémie ñu toll nii. Mm-hmm. ba tax na kon nag euh, li si ne mooy ñu fexe ba nit ñi mën a xam ne Covid bi am na mais jël ses dispositions dem rek. dafa nekk loo xam ne di aussi lu am solo mhm. tey bu fekkee ne yow da nga jog tey par exemple une structure comme seen euh, seen seen seen kër googule. Mhm. mën na war a mën a organiser euh, mais direct si bérébam. te loolu sax dama la koy demande à travers l'antenne dafa mhm. war a nekk benn week-end de don de sang de de de nga xam ne vraiment dañuy jël tout tout le seen directeur Mbagnick euh, macha ku am pas-pas la. gis nañu taxawaayam si yu bari. organiser na ay don de sang. Euh, vraiment euh, au centre de transfusion sanguine mu teew fa ay kilifa donc euh, loolu war na mën a am si si rajo. Mhm. nga xam ne tey jii day am chaque année comme niñ ñu ko defee si rajo yi yenn rajo yi du ma fi nekk di cité am nañu ay bëccëg annuel yoo xam ne bëccëgu maître la et c'est pérennisé sur cet agenda. Mhm. loolu yëpp li ñu si gën a nam ma loolu c'est même activité gënu kii sax. mais profiter de cette période pour faire de la sensibilisation à outrance. Mm -hmm. parce que seen nit ñi ñëw seen macha allah c'est de communicateurs bon vous avez des personnes ressources qui mm. vont pouvoir porter le message mu dem mm. journée mondiale bi ren ji def nañ ko mm. euh, aussi def nañ ko euh, bàyyi kii rek la ñu bàyyi ren ji mm-hmm. euh, la célébration de la journée internationale des volontaires le 5 décembre mm-hmm. te loolu li tax defuñu ko am rapport sur le volontariat du Sénégal bu la direction de la coopération technique waroon publier à l'occasion mm-hmm. rapport bi jotul àgg bon tax y a pas eu une manifestation bu war a ne euh, on célèbre la journée internationale des volontaires par le mm-hmm. corps l'ensemble des corps de volontaires qui sont au Sénégal mm-hmm. mais sinon euh, la journée du 14 moom euh, def nañ ko ah bon moom loolu moom suñu bëccëg la forcément bu ndee ñun rek il faut ñu symboliser ko def quoi mm-hmm. <laughs> voilà mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen ngi déglu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé di dalal ki nga xamante ne moom moo di Thierno Lecompte Seck nekk président bu association nationale des donneurs euh, bénévoles de sang du Sénégal ñu gën ko xam ci Andobees euh, ñu daal di ñëw rek euh, dellu si waat ci li nga xamante ni moom moo di seen association boobule. Mhm. tey ji bi ngeen ko taxawalee ba léegi xam naa ne am na ay ati ati at boo ñu mhm. doon defal rek benn petite évaluation diiru bi ngeen ko sampe ba léegi lan nga ñu ci mën a wax Thierno Seck. Euh, li si ëpp solo si li may wax si évaluation euh, association bi dafa gën a euh, mature dafa gën a gravir les échelons de notoriété mm-hmm. maanaam tey jii qualité gi ñu ko wóolu gi ko autorité yi wóolu ndaxte li ñuy def liggéeyu état la mm-hmm. mënuñu beddeku di ko def mënu donc si ànd ak ministère de la santé ànd ak le centre de transfusion sanguine rek la ñuy mhm. mais yàlla def na tey ci vraiment bu ma doon am lu may wane damay wane kóolute gi nga xam ne centre de am na ko si ñun. Mhm. ak euh, bu ma nee centre de transfusion sanguine ak le ministère. Mhm. ndaxte euh, nit moom bu la def bu la euh, joxee nga ndëkki bu la waxee di añ nga mën ko gëm. Mhm. ren jii suñu déplacement ministère jàpp na si ça il faut le dire. am nañu jox jox nañu ay ay gel jox nañu ay ay ay masques jox nañu mais franchement taxaw nañu pour que ñu nekk dans les conditions appropriées pour mën a def suñu tournée au niveau national. centre de transfusion sanguine la même chose donc loolu aussi pour ñu am que daf dañu liggéey lu tax ñoom ñu gis ko. Mhm. fa ñu démarré woon ak fi ñu toll nii ay jéego ndaxte toll woon na ay temps amuñu woon siège au niveau du centre de transfusion sanguine. Mhm. léegi am nañu siège au niveau du centre de transfusion loolu lu mu wane mooy am na cër boo xam ne bii jox association bi. loolu dafa nekk lu am solo. Mhm. Euh, ñun tamit ñuy góorgóorlu lu ñu man fu centre bi fu centre bi war a kàddoom àggul ñu def. pour mu mën fa àgg di indi ay programme yoo xam ne dañ koy teg seen loxo ba daanaka tey euh, euh, même association yi tourné autour du centre yëpp ñaare dañ euh, centre bi bu ñu leen gisu sax centre dañuy fexe pour ñu jokkoo ñun mm. daanaka la gestion communautaire repose aujourd'hui euh, sur l'ANDOBES mm-hmm. donc loolu aussi nekk na loo xam ne li tey jéego bu am solo la par rapport ba ñu nekkee léegi ndaxte tey su ma jàppee année bi nga xamante ne si la ñu am récépissé bi parce que wax naa la année bi ñu récépissé bi nga xam ne moom lu jox euh, ce statut juridique euh, ñu ngi ko am en 92. kon mhm. incha allah déwén euh, les 30 ans vous la primeur ah. <laughs> comme mhm. on dit dans votre jargon. Mhm. déwén incha mu nekk at moo xam ne yàlla na si yàlla yóbboo jàmm aussi a ah, defe naa ne xale bu demee ba am fanweeri at nag nekkatul xale. <laughs> voilà xale la ba léegi bu ñu jëlee normes yi nga xam ne mais quand même ku am fanweeri at nag war ngaa dégg papa daal quelque sorte mhm. <laughs> kon nag am na liggéey bu ñu def liggéey boo xam ne bii macha allah ñu ngi si si ñu xëy di si gontu euh, ndaxte gis nañ ne li manqué dafa bari. Mm-hmm. Euh, te loolu manqué nag ñun dañuy góorgóorlu ba ñu mën a atteindre objectif yi. Mm-hmm. xaaruñu si nag metti na mais fu ñu mën a ku ñu wax ne tey jii boo leen jaaree fii xëy na ñu jàppale a ah dinañ fa jaar. Mm-hmm. Euh, on a eu des projets que nous avons eu à monter. on a des projets yoo xam ne monté nañ ko tey Tëngéej war na am banque de sang mais ñu ñoo dox au niveau de la municipalité ba ñu génne une délibération. ko a ko centre de transfusion sanguine. Mhm. pour mu am euh, pour ñu tabax fi banque de sang. Mhm. loolu à Rufisque loolu quand même c' important. Mhm. Euh, te lu jiitu sax kii woon nañ ko mais jotu woon mais bii moom euh, le marché est lancé te defe naa ne Tëngéej bu banque de sang rek tous ak li mu représenté au niveau de ak yi fi nekk au niveau du département loolu am solo luy xaw a dimbali centre de transfusion sanguine la. Mhm. bon Tivaouane si boppam euh, jéem lañu euh, pour mu am banque de sang parce que la nekk nee naa banque de sang war nañ mën a fexe ba mu am banque de sang bu normal amoon nañ ay partenaires si jàppoon mais si jamono yooyu li ñu doon laaj ñun amuñu ko. ba dossier boobu lañ ko mujj a mhm. ndaxte yooyu Sénégal looloo ngi fi da ngay ñëw euh, dafa am ay farata yoo xam ne koy indi teg ko ne lii farata lañ si jublu. Mhm. gars yi xool daal euh, lanul farata lañ gën moo lañ gën a intérêt ndaxte foofu la ñu mën a gisee seen bopp. Mhm. duñ ko dugal Sénégal moom loolu moom moo fi nekk actuellement. mais tey jii waruñu woon toog fii di jooytu ay banque de sang yu manqué. ndaxte am na alal joo xam ne tey avec cent millions nga tabax benn moins de de sang. Mm-hmm. mais am na ay guddi yoo xam ne yii ay nit a ngi siy loo xam ne lii mais xal na ëpp loolu. Mm-hmm. si si doo xam ne lii doo si am yàlla doo si am yonente ba. Mm-hmm. <laughs> si am Jésus sax bu la neexee. bon donc ba tax na kon euh, euh, vraiment euh, yàlla na yàlla def daal ba sénégal yi xam ne lii di wàllu may deret état bi def si war a jàpp moo ko war a def mais it war nañu mën a en tan que citoyen def ay actes yoo xam ne c'est des actes citoyens yoo xam ne vraiment xeetu état nga di ko def ak ki nga xamante ne moo ñu ndaxte deret kenn du ko jaay. Mhm. waaw ndimbal euh, jullit euh, du ma si nit nitay garoom buñ la ko doon laaj loo ko mën a wane da nga naan mooy maye deret. Mhm. maye deret rek nga mën a wane ne nit nitay garoom. Mhm. bu dul loolu amul leneen loo mën a teg. te euh, deret jooju tey jii da ngay feebar ñu jox la ko nga xamuloo si ki mu jóge yow mi joxe xamuloo si ki donc kan mooy témoin bu relation bu parce relation am na fa. relation am na fa jox am na fa <laughs> man maye naa deret mais xamoo si ki mu dem kële jot na dina xamoo si ki mu jege mais jokkoo am na. Mhm. mais jokkoo yàlla rek moo ko mën a seede. Mm. yaa que Dieu qui est témoin de cette relation là. Mm. ndaxte yow ma joxe numéro nga jot si poche xam loolu deretu kan. Mhm. waaw euh, ki ki ka ki ka ki ka maye bu xasee ba maye bu daal sang bi génn fu mu paree fu mu maye numéro mooy topp sang ba kañ koy jox kañ koy jox kañ koy jox it lay jox. Mhm. moo tax euh, bu ñu ñuy euh, si maye deret dama naa dafa bu dee jaamu yàlla rek ngay ngay ut loo jaamoo suñu borom dama naa ne direct moom boo fa duggee rek mbëkk nga miir bi. Mhm. kon xam naa si seen perspective yi yéen a ngi bëbët euh, Sénégal fu waay mën a nekk ak région lu mu gën a sori sori nga am li nga xamante ne moom moo di banque de sang bu ko defee boo amee yéene bi tayal du la daal di dugg. loolu euh, mooy su bokk na suñu mbébét bu baax a baax a baax. Mhm. ndaxte euh, mooy vraiment problème bi gën a kii ndaxte ñaar nekk na si. Euh, tey dafa am zone yi dañu xaw a éloigné donc banque de sang bi bu nekkee si benn benn gox pour mu dem si beneen gox parce que mën nga nekk si banque de sang mën na nekk gox boo xam ne bi xëy la fa nekk si nit maanaam dama exemple may jël. Mhm. mën naa nekk mu nekk téeméer. Mhm. mais mu am gox boo xam ne seen diggante mat na ay kilomètres mais la fa nekk si ay nit mat téeméer ak nangam. Mhm. tey jii ñooñu <laughs> manu ñoo ñëw fii ndax soriwaay bi mais bu ñu amoon oto boo xam ne bii aussi day man di dem bu foofu di leen fa fekki parce que fekk moo am solo bu keroog di nga mën a jël euh, plus de téeméer téeméer euh, fukki nekk foofu boo leen lu ëpp genn wàll nga mën nga ko am. Mm-hmm. alors que boo nar boo naree toog fi nga toog ñu ñëw ay boo amee benn wala ñaar fa la yem. Mm-hmm. xoolal lu doy ni Richard Toll. Mm-hmm. dëgg la am nañu xalaatu def fa banque de sang mais ba léegi mënul sotti. mais euh, bu ñu soxlaa deret ndar dañ koy utijee deux cent kilomètres. ndar waaw te am na nu muy demee sax dañu naan leen jox leen essence xam nga ko leen jox leen essence pour ambulance bi dem mais danaa dañ ma ñu ma jënd la mm. kuy dimbali Sénégal ci wàllu santé da nga war a seen ndimbal boobu jëm si banque de sang. Mhm. bu wees banque de sang bi taxawee ndimbal bi dem si oto buy mel di dox di dem jëli traite. Mhm. ak équipement bi. loolu ak personnel bi. Mhm. loolu daal defe naa ne bu ñu si góorgóorloo. Euh, Sénégal dootuñu wax fii na traite manqué dootuñu ko fi wax dootuñu wax fii naan ay dañuy jaay traite parce que euh, tey euh, jamono ji moo métti am na ñoo xam ne ñii xëj na du mën a diw la wala diw wala ceci cela mais nit mën na demander ñaari poche de ñu jox ko mu jox benn bu ëllëgee nga ñëw mu ne la ah il faut nga ut deret mhm. euh, léegi nag euh, pour nga nga joxe nangam euh, yi mhm. donc loolu rek déjà mesure de conservation bi rek respecté mhm. parce que fa mu ko denc frigidaire boo xam ne war donc il a pas mal de choses yoo xam ne mu ngi si biir xëy si émission bi mais li si ëpp solo mooy war nañu góorgóorlu bu amul aussi de transfusion sanguine bu amul poste de transfusion sanguine ñu am un dépôt bi nit ki bu jógee bu demee marché daal di ah, xaar ma jaar fii euh, maye sama de ñibbi këram. Mm. bu ngoonee oto centre de euh, banque de sang ba ñëw jël dara ji yóbbu. Mm-hmm. loolu dafa daal aussi moyen la pour xeex bu fekkee ne mënuñoo tabaxali euh, banque de sang si département yëpp. mais moyen la ñu mën a fexe bu am ay dépôt en attendant mm-hmm. ak oto dépôt ak oto mm-hmm. ah oto bi def ramassage bu ñu ñu ñëwee mais après oto bi dem yóbbu ko mm-hmm. loolu loolu mooy gën a xëñ na moins cher mais dama la xamal ne daal poste de transfusion sanguine daal euh, cent millions defar na équipé waaw tabax équipé waaw kon nag loolu euh, naka Sénégal yi dégg waaye jéem seet def dugal seen dara asaka yi mën na dugg foofu mën na de yoo xam ne saa yi la muy la muy dundal si doomu aadama yi soxla deret mais bu la ñaanalee rek <laughs> yàlla dina multiplier loolu par mille encore mhm. <laughs> waaw loolu day laa si gis daal de tey moom pour ñàkkum deret bi ñu mën ko xeex ba euh, mu jege si Sénégal. Mhm. ba fu ko waaye soxlaa jot ko il faut que ñu yokk béréb yi ñuy may deret mhm. pour mu gën a jege nit il faut que ñu gën a dooleel financement bi ndaxte am ay batiment rek taxul ñuy wax. il faut équipement bi. il faut aussi les moyens parce que analyse yi euh, produit yi tax ñuy analyser deret yi dafa cher poche de sang yi dañ ne état en charge bu fekkee ne établissement public la maanaam hôpital yi nga xam ne koy war a mais poche de sang kenn may ko centre de transfusion sanguine. Mhm. dañ ko koy jaay dañ koy mm. a ah, waaw xaalis la dëgg la état mais euh, xaw ma ndax wàcc na am mais xam naa ne subvention boobu bu yéex a dugg la pour ne pas dire que am na sax boo deful attention di ñëw. Mhm. donc nag loolu aussi c' est problème. Mhm. c' est problème bon euh, li nekkatu fi naa euh, jot mais bu ko yéex a jot rek problème ñëw la. faram ñoo la te loolu nag au niveau de de dañuy dem fenn des fois si kii ñu am don de sang mais à cause d'une collation ñu annulé don bi. je mm-hmm. pense que loolu collation la mille francs boisson euh, ak sandwich. Mm-hmm. mais bu ñu ba loolu di pour que ñu mën a am fukki euh, téeméeri ju maye cent mille francs mais loolu maire yi war nañ ko mën a jël bu nekk war nga mën a def ñetti weer organiser don de sang. Mm-hmm. jël collation bi c'est une forme de de subvention indirecte à à à la cent mille francs kay mairie euh, tous les trois mois ñaata la si at mi. ah ñaata la si at mi soxla si. Mhm. loolu ce n'est rien du tout c'est une goutte d'eau dans la dans la dans euh, donc c'est volonté volonté seen mhm. moo àggul foofu. seen volonté mu ngi nekk si ñu ma tàccu ma moo fi def lii ak fekk na fële xëy na di la tàcc mais yàlla moo lay fay. Mhm. <laughs> Euh, euh, waxtaan wi am na solo ñu yaakaar ne ñi ko war a dégg euh, dinañ ko dégg Thierno Lecompte Seck mu mel ni comme ni ma ko waxee waxtaan wi am na solo mais dafa mhm. mel ni li ñu coraloon ci waxtu bi daanaka yegg si nañ ci. Ah, eh, man de dama leen gërëm comme ni ma ko waxee seen njëlbeen gi rek. Mm. su am yu mel nii. Ah, dinañu si jàppale bu baax a baax. ndaxte euh, fi seen kàddu àgg ñun suñu kàddu àggu fa. Mhm. waaw loolu aussi dafa am solo. Mhm. ba tax na kon nag euh, bu ñu ngeen may nu euh, buntu yu mel nii. porte bu dee ñun lébu gi dañ ñaan porte ngeen may nu porte. Mhm. dañ ñaan porte bi jur buntu kër gu mag. këru lébu lool ah <laughs> lébu si pot ngay jaar booy génn <laughs> boo fa dëkkee boo fa dëkku si buntu kër gu mag ngay jaar hmm. kon nag yéen da ngeen ñu may ñu ñëw dugg seen kër googu euh, yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla taxaw hmm. euh, yal na yàlla def rajo bi euh, RFM kii moins réew mi FM réew mi FM réew mi wooy réew mi FM non je connais bien dama hmm. jum réew mi FM ak fi ngeen raw seen si wàllu communication. amiin ba euh, ku jóg euh, bëgg a dégg lu lu koy jariñ ku jóg bëgg a def loo xam ne da jariñ réew mi. Euh, xalaatam nekk si réew mi ngeen xam ne moom ngeen nekk kon mm-hmm. loolu la leen di ñaanal yàlla personnel ba fa nekk yëpp yàlla yàlla may wér yokk seen wér yokk seen sutura yokk seen jàmm. Mhm. di nuyu auditeurs yi di leen ñaanal la même chose. ah mhm. góor gaa ne ma war rek ñaan daal ñett doy na si. Mhm. Euh, jàmm wér ak sutura. waaw kon yàlla ñu ko yàlla defal <laughs> ñu ko defal ko mboolem mu jullit <laughs> jërëjëf kontaan lañ trop. Eh, <laughs> voilà ñoo a kontaan di wax rek ne yal na yàlla nangu ñaan mbokk auditeurs yi ma fàttali kii di Thierno Lecompte Seck mu nekk président bu association nationale des donneurs bénévoles de sang du Sénégal ñu gën ko xam ci Anobes moo nekkoon émission bii di SOS santé e, fàttali ne SOS santé Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Léopold Mendy nekkoon ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité